maam Fallou woote na de maam Baye Rali maam Baye Rali woote góor yàlla yi takk ñoqale de seet ci leeri yii màggal màggal ko ko tardé day di nga tardé fële de.